أسير مع الأبرار هنا أسير وزن لداني هناك أسير kon mbokk yi nga xam ne ñoo ne ci taabal yi mooy coordinateur forum bi de Serigne Cheikh Abdou Khadre Mbacké Gaïndé ngeen xam bu baax moom aussi mu yor commission communication du Grand Magal Touba mais forum bi moom moo fi coordonné euh, ci wàllu Dakar ki toog ci wetam war a askan wi mooy jëwriñ Serigne Mbacke yu fay moom mi nga xam ne moo fas yéene dara gan yi allah fii le 29 ak le 30 ci Massalikul Jinaan di représentant xarit général des Mourides fii ci région de Cap-Vert. comme ni ñu ko waxee woon aussi le 29 boobu aussi fii ci Massalikul Jinaan ci ginnaaw tisbaar dina fi am jotaay bu mag bu yaatu boo xam ne taalibe yëpp ñu ngi leen woo. mooy ay waxtaanu diine yoo xam ne dañ ko bu jëlaat nga xam ne du bokk ak atelier yi ñuy defee ci méridien président loolu sëñ Cheikh Abdou sëñ mu gën yu fay ak xam ni mën nañu moom moo fa toog Rawdou commission wetam sëñ Abo Mbacke mi nga communication du Grand Magal Touba jàmbaar la ci ràññeeku ci loolu di continuer moom boole seen journaliste yi nga xam ne responsabilité ba incha allah moom it di kenn ci commission ci liggéey bi. den nag Serigne Samba Diaw mi nga xam ne moom mooy coordonné boole seen daayira yi nga xam ne nekk ci région de cap mu ngi liggéey liggéey bu am maanaa liggéey bu ràññeeku ñu ngi ci jaajëf bu baax. den nag suñu mbokkum taalibe sëñ Mouhamed Ali Sarr moom it di borom xam-xam di gëstu bu mag ak sëñ Abdoul Khadir Fall mi nga xam Euh, ci ñuy jàppale commission bi fii ci wàllu coordination ak yombal saa suñu soxlaa bërëb bi ñu nekk tey muy Massalikul Jinaan ak soxna Seynabou Mbacké mi nga xam ne moom it lépp lu jëm ci wàllu jigéen ñi moo ci jàppale comité de pilotage bi ngir yombal jokkale diggante jigéen ñi ak comité bi kon defe naa mbokk yooyu ñoo wër taabal ji dañuy jox kàddu gi Serigne Samba Diaw mu lim daayira yi fi teew wala bopp daayira yi leeral résumé tuuti liggéey bi ak li nga xaar ci daayira yi te mu gàtt loolu nag bu ko defee suñu paree jox docteur Khadim la mu dugg ci thème bi lu tax ak lu tax ñu tànn ko ak ñu ko war a waxtaanee suñu paree jox jëwriñ suñu mbàkk yu fay mu sànni kàddoom ci xew-xew bi ren ak nu ko waa Masaalikul Jinaan di waajale suñu paree jox coordinateur sëriñ Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma mu dugg ci sew sew yi nga xam ni moo na ci biir thème yi ak ni ñu ko bëgg ak réew yi ci war a teew ndax comme ngeen nga xam ne am na ay réew yoo xam ne ñoo nekk ay invité d'honneur ci forum bi moom bu jëlee kàddu dina leeral loolu incha allahu taala suñu paree nag jox kenn ci kilifa yi fi nekk mu ñaan ñu yëkkati jotaay bi incha allah. kon ci ndigalal Serigne Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne moo jiitee kuréel bi nga xam ne moo aju yore lépp lu jëm ci wàllu culture ak communication ak ci. kilifteeku jëwriñu barab bi di alxaji Mbàkke yu fay ak mbokk yi fi teew yëpp ñu ngi ñëw ci jottali leen programme bi nga xam ne moo war a am ci màggal gii muy niñ ko war a dundale ci wàllu xam-xam jataay bi ci jëkk ni ko alxaji Samba waxe mi ngi amee ci Mbambilor ci bisub ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre thème bañ fay waxtaane mooy lu jëm ci daayira daayira ci boppam wàccuwaay ak taxawaay bi nga xam ne moom la am ci lislaam rawatina ci yoonu xaadima rasuul ak li nga xam ne moom lañuy xaar ak di ko séentu ci daayira yi ci taxawaay ak liggéey boo xam ne moom lañ war a def pour liggéeyal ko lislaam ay liggéeyal ko itam ñi nga xam ne ñooy njabootu islam gépp ci wàll yëpp ak li nga xam ne tey moo nekk seeni kanam ci ay gàllankoor yoo xam ne dañoo war a am taxawaay yu mat sëkkitam et ba jaar seen diggante ak gàllankoor yooyu loolu mooy thème bi nga xam ne moom lañuy ñuy ubbee waxtaan bi nga xam ne moom la ñuy def e ci màggal gi te di ko tàmbalee ci Mbambilor ki war a def waxtaan wa di Serigne Sam Bousso ki nga xam ne moo ko war a modéré di Serigne Mbacké Lo Mouhamad bu ñu jógee Bambilor ci vingt-neuf danañu ñëw fii ci barab bii nu nekk di maanaam Masaalikul Jinaan war fee def nag euh, maanaam thème bu am solo muy li nga xam ne mooy euh, li ñuy wax alxuwiya al islamiyya muy identité islamique ci boppam identité islamique buñ koy wax mooy l'islam bu doon jëmm li nga xam ne moo koy mandargaal nga xam ne tey e, ku ko xool rek xam ne daal islaam a ngi nii nga xam ne bu doon jëmm mooy e, mbubb ak yére yi nga xam ne moom la baaxoo sol ba ku ko séen ku ne xam ne jëmm jàng ne kon identité islamique loolu lan moo ko composé muy identité islamique yi ko composé ci ay éléments ah bay tax mu mat sëkk bu ca manqué it ñu mën a xam maanaa eh, ne manqué na ca loolu ci boppam eh, mooy thème bi nga xam ne tey mooy thème général bi waaye ñu wax ne nag identité islamique boobu phase ak mondialisation ci boppam eh, muy défi yi nga xam ne tey ñoo nekk ci kanam identité islamique boobu tey bëgg koo xajamal wala mu bëgg koo tilimal loolu itam ñu euh, leeral ko bu baax a baax ba jullit yi mën a xam nan la ñuy aare loolu muy identité islamique importance bi mu am ak aar giñ ko war a aar ci lépp loo xam ne lu ko mën a xajamal wala lu ko mën a tilimal wala loo xam ne moo mën a jaar diggante islam ak loolu ñu ko doon xàmmee loolu importance bi mu am danañu ko waxtaanee ci euh, maanaam euh, panel boobu nga xam ne moom lañuy def ci le 29 danañu waxtaanee it ci biir panel yéen li ñuy wax mondialisation ci boppam mondialisation buñ koy wax mooy gëndale gi ñu bëgg a gëndale xëttali ko mboolem goxi àdduna yëpp ba tey boo demee ca maanaa Amérique muy continent bu Amérique ak ci Afrique ak ci Asie ak ci Europe lépp ñu xëttale ko ba nga xam ne nañuy dund ci wàllu culture ci wàllu économique ci wàllu social ci wàllu bi lépp day mel ni et dañuy xëttale lépp ba foo ci nekk rek mel ni amatul frontière bu jaar sa diggante ak morom ja ci wàllu yooyu yëpp loolu mooy mondialisation loolu nag tey xam nañ ne am na ay lor yu baree bari surtout ci réew yi nga xam ne ñoo bëgg a dund seen diine ak réew yi nga xam ne ñoo bëgg a garder seen identité culturelle wala seen identité religieuse am na ay lor yu ca am waaye am na it ay njariñ yu am ca loola nan la ñuy def nag ba mondialisation moomu la ca am ci ay njariñ ci wàllu diine ci wàllu économique ci wàllu sociale ak ci wàllu culture ñu man koo xam man koo jariñoo te la nga xam ne moo ca am itam ci ay lor ak i musiba yoo xam ne tey bu ñu sàgganee ba mu ñëw dara nu xañ lu bari ñu xam loole xam nanuy def ba mucc ca yooyee loola mooy li nga xam ne tey mooy eh, ñaari eh, panel yu am solo yi nga xam ne moom lañuy amal eh, ci barab ju tedd bii di Masalikul Jinaan et ci le 29. bu ko defee ca jour la 30 ba nag ci la ñuy def cérémonie clôture bi nga xam ne kii di fa yi danañu ko fekkee incha allah su ko defee e beneen programme bi ci toppaat nga xam ne moo génn Cap-Vert ñu ngi koy defee ci Sine Saloum ci Kaolack ci bopp et ñu ngi koy def ci 5 novembre et ba thème bu am solo la te mooy li nga xam ne mooy ak taalibe dëgg dëgg dëgg xam ngeen ne eh, ak taalibe ci boppam kenn ku nekk tey am na noo ko gisee ba tax eh, kenn ku nekk tey maanaam koo wax rek ne doo murid saadix sax mu mer kenn ku nekk bëgg a nekk muridu saadix ba am sax ñu koy wuye wooyee seen bopp waaye ki nga xam ne nag moo sakk ak murid sàkk ak taalibe rek dafa définir melokaan ak critères yi nga xam ne moo war a daje ci maanaa li ñuy wax muridu saadix muy ak taalibe dëgg dëgg dëgg borom borom borom yoon wi sakk ak taalibe moo sakk ak i melokaan ak i mandarga yoo xam ne dafa wax ne kum daje ci yow ab taalibe ga ku ca manqué benn lu tuuti tuuti rek na nga xam ne sag taalibe mëtu loolu nag nu toll ci jamono yoo xam ne dañ ko war a xam bu baax a baax ba xam lan mooy ab taalibe ak kan mooy ab taalibe ak lan mooy tax a doon ab taalibe ak lan mooy tee doon ab taalibe loolu lépp ci mbindum Serigne Touba moo xam ne kenn du ca dolli dara loolu lañu bëgg leeral foofu ci eh, jataay bi nga xam ne mooy am ci Kaolack eh, borom xam-xam bu mag di Cheikh Sidi Moukhtar Ka moo war a eh, def waxtaan wa ki nga xam ne itam moo di sëriñ Mbacke Abdourahmane mooy ki nga xam ne moo ko wara a moo deewee su ko defee conférence beneen bi nga xam ne moo ci toppaat xam ngeen ne ci màggal gi dafa am ay jataay yoo xam ne dañ koy dañ koy terale góor yàlla yi nga xam ne ñoo àndan ak Xaadimu Rasuul di ko defee ci seeni pénc ñu nga xam ne yooyu seen njaboot ga nekk maanaam jiite jataay ba taalibe yooyu aji ci kër gi yëpp it fekke ko loolu nag ren dafa am ñaari jataay yuñ ci tànn terale ko ñaari kilifa yu mag kenn ki di sëriñ Afiya Mbacke bokk di rakk ci Xaadimu Rasuul nekkan imaamu eh, jàkka wala jumaa ji ci njariñ ci ndigalam Xaadimu Rasuul muy sëriñ Afiya ci këram ak ci kanam ak njabootam dana am conférence bu am solo boo xam ne moom it danañu ko fa def eh, moom itam ca lañ koy def dafa am solo lool ndax dafa bokk ci fondement yoonu murit muy ndigal ndigal muy baatu ndigal ci boppam baatu ndigal ci boppam ci li nga xam ne tey mooy tënk ndigal ci boppam lan mooy ndigal li ñu a topp ak mooy ndigal li nga xam ne moom lañ war a sàmm ak ndigal li nga xam ne waree su ko topp waree su ko sàmm muy ndigal bu ñu waxee ndigal lan ndigal lañ war a topp ak kan lañ war a topp ndigalam loolu muy loo xam ne temm bu am solo la boo xam ne moom lañuy ñuy def ci kër njabootu Serigne Afia ki koy def di kenn ci njaboot ga di euh, ki nga xam ne mooy naa Abdul Wadood Mbakke mu am beneen jataay boo xam ne ñu ngi koy jagleel njabootu Serigne Darou Assane Ndiaye di ko defee ci jëm ci Darou Ndiaye moom itam di ko defee moom itam ci thème bu mel ni bi ñu doon def yi muy daayira ci boppam mais nag dafay xaw a wuute parce que daayira maanaa ci jamono yii lu nekk nan la daayira di dunde ak lan lañuy ñuy séentu nag ci jamono yu ñu ñëw d'ailleurs war naa doxee ba jóge fii mu nekk demaat faneen foo xam ne tey moo doonoon dëgg-dëgg fi ñu doon séntu ci wàllu daayira ndax ci ay ay ay ay ay ay jéego la yoo xam ne bi ba léegi mi ngi koy dox fan la ci ak fan la ñuy séentu ci kanam nag mu dox àgg fa loolu mooy euh, bi nga xam ne mooy euh, euh, bi ñuy def ci kër Serigne Darou Assane Ndiaye et loolu mooy conférence yi nga xam ne moom lañuy waajale wala jataayu diine yi nga xam ne moom la ñuy waajale màggal gi te buñ demee ba bisu màggal gi nag xam ngeen ne am na jataay bu am solo bu ñu baaxoo def ci biir yorooru yor yooru màggal gi hmm. moo boo xam ne bu ñuy def muy ci wàllu yor yooru màggal gi kooku eh, moom itam mooy ba tey identité islamique ba tey mooy bi ñu defal fii moom la ñuy baamtuwaat kooku ah, ah, identité islamique ah, ak mondialisation nañ la ñu réconcilier Euh, garder identité islamique aar ko ak dund mondialisation muy loo xam ne tey euh, conférence bu am solo la boo xam ne ñi ciy bokk danañu bari lool muy représentant turux suufiye yi yëpp muy këri diine yi ak organisation islamique yu mag yi danañ ca teew waaye ñi nga xam ne itam ñooy membre yi raw rawdu riyaahin di njabootu yoon wi itam danañu ko ànd ak ñoom kon loolu mooy li nga xam ne mooy eh, programme bi nga xam ne mooy programme bi wàllu aju ci wàllu diine te nga xam ne eh, rawdu rayaahin ak kuréel yi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllu xam-xam ci yoon wi ci jiitalu sëriñ Abdoul Ahad Gaye département incha allahu moom lañ fas yéenee amal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf mbokku yi mbokku taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu. di leen uh, ziyaare di jiital ci nuyoo bi le khalife général des mourides Cheikh Sidi Mokhtar ñaan yàlla yàlla fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér ak njabootu xaadimu rasul gépp bu bokkal liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi ak mbokk taalibe yi mbokk jullit yépp di rafetlu jotaay yu tey ñu am ak suñu mbokk taskatu xalabaar yi ci waajal màggalu Tuuba ñi nga xam ni événement la boo xam ni événement bu mag a mag ci diine lu muy événement diine di am ci at mu ne ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ñu am mbégte mu rëy ak cant bu rëy goo xam ne amal nañ ko sëriñ bi moom mi nga xam ni moo ñu baaxee wax wax comité d'organisation bi ni waajtaayu màggalu Tuuba gune ñu koy defee fii ci Ndakaaru di ci woo addina bi yëpp muy ñaari fan moo xam la nga xam ni dañu koy def ci programme waajal màggal gi nga xam ni comité d'organisation bi ñoo koy def di ko tàmbale fii ci Ndakaaru Ndakaaru nag jàpp naa ni dafa bokk ci tool yi murit yi nga xam ni murit yu bari fii lañu nekk ci biir ndakaaru bu jaadu bu ñu sëriñ bi baaxee ñu indi ko fii ci ndakaaru ñu war a waxtaan ak ñi nga xam ni ñoo dëkkee ndakaaru ñi ko dëkkee nag yemul rek ci taalibe murit yi ndaxte taalibe murit daanaka jarul woo ci màggalu sëriñ Touba ndaxte boo leen woowee ñu ñëw boo leen woowut ñu ñëw waaye jaadu na li nga xam ni moom lañuy def ak mu ne ngir bëgg nit ñi dëkke réew mi ak ñi dëkk bitim réew surtout ñi dëkk bitim réew gën a xam li nga xam ne lii mooy liggéey bu rëy bi Serigne Touba Xaadimu Rasuul def ci diine l'islam mooy liggéey boo xam ne liggéey bu rëy rëy rëy rëy ndaxte thème bi comité scientifique bi jël tey ren ñuy wax ci identité islamique thème bu rëy la parce que identité islamique boo koy xool mën nga cee gis yoonu murit parce que sëriñ bi diine dëgg dëgg dëgg dëgg l'islam pur mooy sëriñ bi mooy yoonu murit ba nga xam ne bii mondialisation bi nga xam ne tamit dañuy xool ban apport la ci yoonu murit taxawee it na waaye day ñaari élément yoo xam ni xam naa ñi ko doon choisir dañoo daje ndimbalul sëriñ bi parce que day loo xam ne lii dafa nekk loo xam ne dafa ñëw ci waxtu wi mu war a ñëwee ndaxte sëriñ Touba fii mu ne nit ñi ñoo ko soxla àddina bi moo soxla Serigne Touba bu ma nee Serigne Touba nag mooy njàngale mu Serigne Touba njàngale mu Serigne Touba di maanaam li nga xam ne moom la indi ci diine lislaam bu ko addina bépp xamoon addina bépp noppalu mu jàkk parce que li ñu tuddee diine wala ñu tudde ko l'islam li ci ëpp du moom moo tax xat-xat yi am wala yu bari ñu koy ñu koy collé islam te islaam léegi ñoo ngi wax islamisme lu ne la ñuy wax te loolu bu ñu ko defee bëgg a gàkkal diine ji la rek te diine ji tabarkal la yàlla moo ko ñagal boppam kenn du ko kenn du ko gàkkal te nag li ci Serigne Touba indi ci enseignement buñ ci tënkoo daanaka tabarkal la lépp jag loolu xam naa ne ñi nga xam ne ñooy comité scientifique bi ak njabootu Serigne Touba nga xam ni ñu ci bari ay professeur lañu ak ñi ñu invité ñu jóge bitim réew xam naa buñ ci ñëwee dinañ ci waxtaan waxtaan wu am solo woo xam ni buñ ko tënkee te yaatal la nga xam ne lii moo fay génn comme xam-xam daanaka jëlale naa ñun waa senegal waaye addina bépp dina ci mën a defaru forum bu mel noonu nag ku ko yàlla may muy muy xewee ci sam réew at mu ne ba nga xam ni ay nit dañuy jóge fu ne di taataan si di root si loo xam ne lii da di jariñ ci seenu dund jariñ leen ci seen environnement yow mi nga xam ni yow lañ koy defal te nga nekk ci réew ma daanaka yow kenn waru la cee man kenn waru la cee jëkk kenn waru la cee gën a jàpp muy ci xew-xew bi nga xam ne bii mooy xew fii te yàlla sëriñ bi baaxee ñu ñu koy def fii fi Ndakaaru nga xam ni gan yi ñun ñoo leen di accueillir ñoo leen di dalal yàlla def na ren am na gox boo xam ne mi ngi ci biir ndakaaru dinañ fa am xew-xew bu ñu fay defee daanaka nag dañoo jël foofu rek muy gox boo xam ne dañu bëgg ñi nga xam ne ñoo nekk ci banlieue bi mën a daje foofu waaye xew-xew bi fépp lay am ci ndakaaru daanaka bu ñu sañoon sax quartier bu nekk durant ñaari fan yi ñu dund dund waajal màggalu Serigne Touba gi ñu jëm ba nga xam ne bii daanaka gox bu ne quartier bu ne kër gu ne dinañ yëg ni ñoo ngi waaj di jëm ci bës bu mag boobu muy bësu Serigne Touba bi nga xam ni mooy màggalu Touba te nekk ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ñu koy ñuy sant d'abord ñi nga xam ni ñoom lañ ko bokkal liggéey bi muy suñu mbokk taalibe yi ñi nekk ci fédération yi ñi nekk ci bopp daay yi ñi nga xam ni ji ñoo ko daan bokk ak ñoom te woote bu ñu mas a wooteel Serigne Touba ñu def ci seen kemtalaayu kàttan taxaw ci ba sëriñ bi amee ko ni mu ko bëggee. ñoo ngi leen di woowaat di leen xamal ni liggéey bi nii rek la sëriñ bi moom bu defee li nga xam ne war na ko mooy sant ñu li ci des mooy ñu def ko nam ko bëggee te loolu mooy woote bi e, ñu di ko def fii ci ndakaaru diggante bu weer wi dee muy le 29 et le 30 octobre nga xam ne wàccaay wi dañ koy defe fële ci ubbite bi King Fahd waaye daanaka li ci ëpp ci xew-xew bi point focal bi mooy fii Masalikul Jinaan nga xam ne fii lañ koy defee am na bës bu ñu jagleel waa fële Mbambilor ak li ko wër ba booru waye mbaam ak euh, gorom gorom 2 kon noflaay ak foofu yëpp ak taalibe yi dëkke Tëngéej ak ñi nga xam ne ñoo dëkke ci banlieue bi pour ñu mën a ñun ñëpp dem fekki leen bu ko defee ñi nga xam ne amuñu woonu moyen ñëw ñu dem fekki leen indil leen yóbbante bi nga xam ne bii moo jóge ci sëriñ bi mooy li nga xam ni moom li ñu bëgg a développé muy njàngum sëriñ Touba mu gën a yaatu ñëpp daj ci ñu bari sax xëy na dinañ jàpp ni loolu ci waajtaayu màggal matu ko axakañ ah mat na ko mat na ko sax sëkk sëkk sëkk sëkk ndax dañu nekk ci ère communication et nekk ci ère waxtaan ak nit ñi parce que nit bu bëggee mbirit il faut que mbir ma mu bëgg mu xam dëgg dëgg dëgg mbir ma mu bëgg lu mu doon loolu moo tax comité scientifique bi ni ñu def ñoo koy rafetlu di ci ànd ak yéen di leen xamal ni lépp luñ ci mën ci suñu kéemtalaay kàttan dinañ ko def ndax waa Ndakaaru fu sëriñ bi ma a woote ak lu woote ba fu woote ba jëm nga xam ne lépp ci liggéeyal sëriñ Touba dañ ko daan ànd ak ñun rafetlu ko ñëw taxaw ba sëriñ bi am lu mu ko bëggee kon ñoo ngi leen di woowaat Samba wax na ko. dinañu def avant première boole kook ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp kuréel yooyu yëpp bu ko defee eh, yàlla yóbbu ñu ci ci jàmm ñu teeru suñu gan yi dala leen eh, ba bu ñu fiy jógee am fi souvenir boo xam ne bii moom méngoo ak ndakaaru surtout méngoo barab bi nga xam ne moom lañ koy defee muy pàkkub Serigne tubaab bi di Masalikul Jinaan kon ñoo ngi ci woo ñëpp di ci sargal ñëpp di wax ni nañ ci jàpp ndaxte taalibe kat ren rek la bëgg am ngërëmul sëriñ bi ngërëmu sëriñ bi nag bala moo am santaane sëriñ bi day am bu santaane ba amee ñu jëfe ko nu sëriñ ba bëggee la cay tegu mooy ngërëmul sëriñ bi kon yàlla nañ ko am ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmani rahim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu ñi ngi nuyu mbooleem mbokki fi teew di leen sant di leen gërëm di nuyu mbooleem journaliste yi nga xam ne ñëw nañ tey wuy suñu ci ndaje bu am solo bi nga xam ne am nañ ko te léegi bu nekk tradition ak mu nekk su màggal gi jege si ñu daje fii di ko fii def di ñaan yàlla def ko at yu bari te yëpp ngeen fekk ko ñu itam suñu mbokk taal bi nga xam ne ñoom nañ fekk si jotaay bi yëpp ñoom boobu nag ñu def ci turu xalifa général des mourides Cheikh Sidi Makhtar Mbacké di ko def ci turu ki nga xam ne moo di président comité d' organisation Magal Touba di Serigne Bassirou bu Serigne Abdou Khadir ak di ko def ci turu mbooleem njabootu Serigne Touba gépp di gis nag nuyoo bi itam ki nga xam ne moo ngi dal ci barab bi mu di El Hadj Macky Faye ndax moom fi président moom la fi sëñ bi teg man ak mboolem ñu ma àndal ci comité bi ñu ngi koy nuyu di ko ñaan mu jot leen nuyoo boobu ñi nga xam ne ñoom ñoo ko jàppale ci ci liggéey bi. di am mbégte rek di dellu ngir. waxtaan ak yéen ci lu jëm ci mbirum màggal gi ndax xam ngeen ne màggal gi dafa am dimension boo xam ne léegi am na ko muy une dimension mondiale gis ngeen ne depuis lu mat juróom jàpp juróom-benn at organisation bi am na fu mu toll foo xam ne foog naa ne Sénégal gépp sedd nañu ko loolu li ko sabab mooy activité yu bari yi nga xam ne ñi ngi koy def ci biir màggal gi ci loo xam ne ci loo xam ne jiitu na màggal gi ak su magal gi ñëwee foog naa fii wowoon nañ leen fii ci ay organisation ay colloque loo xam ne lu mat juróom fukki réew teewoon nañ ci def nañ ko fi lu ñaari yoon defoon ci benn forum en 2013 def benn capsule culturel ak ay ndaje yu bare bare bare bari ndaje yooyu yëpp itam bu ñu koy def mbooleem ñi ñu bokkal diine ji ci biir réew mi lañ koy siqal kon loolu day mel ne lu mel noonu tey jii moom lañ indiwaat ci biir li ñuy liggéey bi ñuy def ci màggal gi itam muy liggéey bu am sol ci njiital sëriñ Bassirou Moussa Abdou Khadir bari na ay téere yoo xam ne ñu ngi koy mool muy édition de livre te loolu nekkoon ànd nekkoon na suñu gàllankoor tey jii foog naa at mu nekk ay téere yu bari la ñu moom di ko tasaare lépp di njàngaleem Serigne ko conférence ñi def itam gis ngeen li mu bare ñu ko def fu ci àdduna si ak ci biir réew bi yooyu yëpp di activité yu am solo yoo xam ne muy ay activités culturelles yoo xam ne dañ koy def ñu koy nag jiital màggal gi ndax xam nañ ne màggal gi buñ ci àggee dana xat li lu bari danañ ko tal ba daanaka am na yoo xam ne boo leen ko dee déglu itam dañu am jafe-jafe ci di ko di ko déglu kon moo tax ñu indiwaat ren jii li nga xam ne mooy forum bi ñu indi du ma dugg si programme bi ndax sëñ Xaadim si la joxe na ko muy identité islamique ak mondialisation ak yeneen yi nga xamante ne bi tam ñu ngi koy def ci yeneen i barab muy ci kaw nag muy ci Diourbel muy ci Mbacké Bawol muy ca biir Touba ak ak yeneen barab yu yu mel noonu ak ca Mbambilor itam nga xam ne fa la ñuy tàmbalee allah kon. loolu mooy li nga xam ne mooy li ñu bëgg ànd ak yéen ñu am na ndigal ci sëriñ bi ñëw def su ko fii Ndakaaru bu ñu nee Ndakaaru itam waxuñu rek département Dakar mbooleem région de Dakar moom lañu bëgg a dajale fii le 30 ci teewaayu sëriñ bi fii ci Ndakaaru ñu ànd waajal màggal bi moo tax dañ koy ubbee Mbambilor wante li nga xam ne mooy waa Pikine ak waa Guédiawaye ñoom sax ñëw nañu ñoom ñëpp ci bis dañu ànd ak waa Tëngéej ak waa département Dakar ñëw fii ak nag mboolem kilifa yi nga xamante ne bii jóge nañ bitim réew fekke si jataay bi ak kilifa yi diine ci biir réew mi ak kilifa yi aada ci biir réew mi ak autorité politique yi nga xam ne ñoo ne ci biir réew mi ak ambassadeurs yi ñoom ñëpp nag ñu daje fii ngir def fi cérémonie de clôture am message bu am solo boo xam ne dana jóge ci xalifa général mu mourides ki nga xam ne moo yor kàddoom di Serigne Bassirou parce que yéen jotale ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo fi ñu tàmbale ko wàccaayu magal bi kon foog naa ne gannaaw mi ngi mi ngi guddi te xam naa mbirum courant wóorul ci réew mi yaakaar naa ne peut-être euh, on va aller faire un petit résumé en en français euh, pour vous permettre de de poser donc quelques questions avant disons d'aborder la deuxième partie de de rencontre. Et je disais tout à l'heure Magal connaît aujourd'hui une dimension mondiale. Une dimension mondiale à cause de toutes ces activités que le comité d'organisation a entrepris depuis quelques années. On a organisé des colloques, on a organisé un forum, on a organisé un carrefour culturel. Et donc, c'est d'intenses activités culturelles que le comité d'organisation, en tout cas, organise donc chaque année, ici à Dakar, dans le reste du Sénégal, ailleurs à l'extérieur du pays et à Trois-Mers. Et c'est cela que nous revenons faire encore une fois ici au niveau de Massal Pluginal, avec un thème qui est extrêmement important, qui va parler d'identité islamique et de mondialisation. Euh, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisé. Une globalisation qui ne comporte pas que des aspects positifs, puisque vous n'êtes pas sans savoir que cette globalisation, et en tout cas le, le fait de culture non islamique. Et le véhicule de cette mondialisation, le vecteur de cette mondialisation, c'est les nouvelles technologies de l'information. Et tout cela est dominé par les sociétés occidentales. Et l'islam doit avoir donc sa place dans cette mondialisation tout en gardant son identité. Ce qui quand même constitue, je crois, un défi euh, extrêmement difficile à relever. comment rester soi-même et s'ouvrir aux autres, aux apports des autres cultures sans perdre son âme, sans perdre son identité. Donc voilà le défi auquel le monde islamique est aujourd'hui euh, confronté. Est-ce que nous sommes suffisamment donc préparés pour faire face à ce, défi Est-ce que nous sommes suffisamment outillés, en tout cas pour pouvoir sortir notre épingle du jeu Est-ce que nous sommes en tout cas pour que le monde islamique puisse donner un apport tout en donc s'ouvrant aux autres cultures et quand en restant identique à elle-même depuis le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est, la problématique autour de laquelle nous allons donc au cours donc d'ateliers, de panels que nous organisons au niveau du, du Président, avec une cérémonie de clôture qui va avoir lieu ici à Massa de Jinan. Et pour cela, nous avons invité un certain nombre de pays, une dizaine, euh, qui vont donc de, l'Égypte, du Liban, du, Canada, de la Turquie, la Jordanie, le Soudan, l'Angleterre, le Canada, l'Irak et encore bien d'autres pays. Donc c'est assez quand même représentatif de ce qui constitue aujourd'hui le monde islamique. Et ce sont donc nos hôtes qui vont venir trouver les éminents intellectuels sénégalais, qui sont donc des universitaires, qui sont des, des guides religieux, et donc qui vont pencher sur ces questions, je dirais, en tout cas d'une extrême importance pour notre jeunesse, d'une extrême importance pour notre pays. Et ceci ne fait que confirmer la place qu'occupe le Magal de Touba aujourd'hui dans la vie de la nation. Je dis que le Magal est un moment, je dirais, capital, puisque c'est un, c'est un moment de brassage culturel, c'est un moment d'intenses activités culturelles. En tout cas, c'est un moment qui est mis à profit par les acteurs économiques euh, pour booster de manière générale l'économie sénégalaise. Et c'est ça aussi qui fait, disons, que le Magal a une dimension multiples. Et c'est donc tout cela que le comité d'organisation est chargé, en tout de mettre en valeur, donc est chargé euh, de, de, de, de canaliser pour qu'en tout cas chacun puisse euh, en profiter et, et tout, en reste, tout en étant conforme au, à la pensée et aux enseignements de Cheikh Ahmed Bamba. C'est ça qui fait que cette année, si vous avez bien écouté euh, ce qu'a dit Serigne Khadim Silla, ce sont les questions d'identité qui sont au cœur du Magal. Pour le, pour le colloque, pour le forum, nous allons parler d'identité islamique. Mais il a, il a également cité, nous parlerons de la vie des, des daïras. Nous parlons également du modèle Mourid. Donc ce sont ces questions d'identité qui seront cette année au cœur du Magal, puisque nous pensons que nous sommes dans un monde, en tout cas sans repère, dans un monde dominé par d'autres cultures qui ne sont pas islamiques, Et donc nous devons nous questionner euh, par rapport à notre identité, réfléchir par rapport donc à tout cela pour donc rester nous-mêmes et pouvoir profiter de cette mondialisation qui, quand il faut le reconnaître, a des aspects qui sont positifs. Et donc je crois, que je vais m'en arrêter là et ouvrir donc la série de questions. Et donc avant de passer à la deuxième au deuxième volet de de notre rencontre d'aujourd'hui forum bi ak caravane bi mu mënut a nekk gàllankoor le forum c'est le vingt 29 et 30 caravane bi ñu ngi koy démarrer le le 23 wante caravane bi mi ngi jëm côté Sine Saloum la jëm alors que le forum c'est à Dakar donc foog naa ne te am na intégration ci mboolem activité ñuy def ndax caravane bi fi muy dem fépp di fa day. préparé waale bis bi nga xam ne moom la ñuy def Kaolack le 5 donc euh, ni ñu ko defee nii foog naa ne euh, c'est c'est quand même relativement bien réfléchi ah dañuy Kaolack nga dem Sine Saloum wër fa préparé ñëw sëriñ bi foofu le cinq le cinq nag ñëpp daje fa mu nekk nga xam day mel ne day day nekkal ci kii mais forum bi c'est c'est kon loolu loolu mooy kii question bi euh, première première question bi. il parle de bi nga xam ne mi ngi wax la crise du système éducatif bon foog naa c'est le c'est c'est le journal de d'évidence qui pose cette cette question euh, vous savez Cheikh Ahmadou a un système éducatif qui est propre à la communauté mouride un système que aujourd'hui on est en train de mettre en place à Touba je dirais qu'on est en train d'améliorer Parce que de tout temps, il y a eu un système qui existait. Mais c'était le système traditionnel, purement d'ara et de sciences religieuses. Et aujourd'hui, il y un système qui est à qui fait que l'enfant va apprendre le Coran, le mémoriser par cœur, apprendre l'essentiel des livres d'enseignement islamique et être en mesure de poursuivre une scolarité normale comme tous les autres enfants sénégalais. Un tel système existe à Touba. Mais ça, c'est dans un cadre privé. Aujourd'hui, l'enseignement au Sénégal est, disons, géré par l'État du Sénégal. Et donc, je pense que nous ne pouvons pas imposer donc à l'État un système éducatif et dire qu'il faudrait mettre cela dans le système éducatif. Parce que quand même, si toutes les communautés religieuses se mettent à faire cela, je pense que ce le, le Donc nous, on s'en tient à ce que nous gérons ou à un niveau, communautaire, tout en quand même les bras à l'État, si l'État juge nécessaire, en tout cas, de venir puiser dans ces enseignements-là, et moi je dirais bienvenue. je crois que c'est ça quand la bonne démarche. pour l'autre question qui parle de, du choix de Kaolak et de, euh, on a décidé chaque année d'aller dans des régions Et cette année, on a choisi la région de Dakar. Et on vient ici à Massali pour faire une conférence régionale. Et à Mbambilor, c'est une conférence, je départementale. Et l'année prochaine, on reviendra encore à Massali faire une conférence régionale et on ira à Guédiawaï ou à Pikine. Donc c'est comme ça qu'on a choisi de le Pour également Kaulak, on a choisi d'aller à Kaulak avec la caravane qui va sillonner l'ensemble des départements de Kaulak, et de Catherine, que nous allons donc clôturer euh, par une grande euh, conférence qui va concerner tout le Sine Saloum dans la région de Kaolack. Et l'année prochaine également, euh, donc nous, nous démarrons par mm, d'autres euh, d'autres régions du Sénégal. Et vous savez, Kaolack quand même c'est après Touba, il y a Porokhane, hein? Et Kaolack quand même c'est la région où, où le département de Nioro et la ville de Porokhane. Donc je pense que rien n'est rien n'est gratuit dans euh, dans ce que nous faisons. Hein? Donc ça, c'est par rapport à la question de, euh, de, de M. Par rapport aux résolutions que nous remettons à, à l'État, vous avez parfaitement raison. Chaque année, les résolutions sont remises aux autorités étatiques. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure pour la réponse concernant le système éducatif, notre rôle s'arrête là. Nous ne voudrons pas, disons, prendre la place des autres. Il y, a des, il, y a des, il y a des autorités qui ont été élues par le peuple sénégalais pour gérer l'État du Sénégal. Et donc nous, ce que nous pouvons faire, c'est apporter notre contribution, mais nous ne pouvons pas imposer et nous ne voulons pas imposer donc quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc je pense que euh, nous, nous, on s'en tient à cela. Nous faisons donc nos réunions, nous faisons nos colloques, les résolutions, sont diffusés d'abord dans la presse, donc partout à travers le Sénégal, remise aux autorités, maintenant libre à eux d'en faire euh, l'usage qu'ils jugent, en tout cas je dirais, la, qu'ils jugent en tout cas nécessaire. Pour ce qui est des, des attaques contre le cher, ce qu'on appelle des, des attaques, d'abord je dirais que ça a toujours existé. Mais nous, notre démarche est une démarche, je dirais, globale, constante et beaucoup plus générale. Et je dirais même stratégique. on ne répond pas à des provocations. Nous ne sommes pas là pour répondre à Massamba, pour répondre à Mademba. Euh, nous avons une ligne directrice, nous avons une vision. Et nous tenons à cette ligne directrice et nous tenons à cette vision. Nous avons des objectifs bien Et nous sommes, je dirais, en tout cas orientés vers le but que nous nous sommes fixés. Donc je pense que ce que vous appelez des attaques, nous n'avons en rien à avoir un impact sur les activités que nous on mène au niveau du comité d'organisation. Et nous pensons que la bonne démarche aujourd'hui, c'est de diffuser les enseignements de Cheikh Ahmed La bonne démarche aujourd'hui, c'est d'apporter une réponse intellectuelle à un ensemble de questions que le peuple sénégalais est en droit de se poser. Et nous pensons que la bonne démarche, c'est d'organiser des conférences. La bonne démarche, c'est de permettre aux oulémas de pouvoir parler aux fidèles, pour les éveiller, pour leur donner en tout cas la bonne parole, pour diffuser l'enseignement de Cheikh Anta et armer tous les talibés pour que quelles que puissent être les provocations auxquelles ils peuvent faire face, en tout cas ils seront armés moralement, spirituellement et je dirais intellectuellement pour faire face à cela. Donc c'est pour ça que nous, on ne répond pas aux provocations. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour une mission bien précise qui est d'organiser le Magal de Touba. Nous sommes là pour une mission bien précise qui est de diffuser les enseignements de Cheikh Bamba et on s'en tient à cela. Donc on ne se laissera pas divertir, par des, provocations, ou en tout cas se laisser, divertir euh, euh, par, les attaques qui viennent de, et qui sont de toute façon, je dirais, dérisoires, hein, puisque quand même le, euh, la vie de la communauté continue de la briller encore de, de, plus belle. Et vous avez la brillante, vous avez écouté la brillante intervention de, de Harim Silla, qui est qui n'est qu'une personnalité parmi les sommités mourides qui pendant un mois, en tout cas, vont prendre la parole et diffuser les enseignements de ce je crois que c'est ça quand la bonne réponse que nous devons apporter. Maintenant, s'il y a d'autres qui jugent qu'il y a une autre façon de faire, ça aussi, je pense que quand même, sont, ils sont Je pense avoir répondu à, à toutes les questions, mm. hein, je crois. Et avant de terminer, je parlerai des, des accréditations euh, qui déjà commencé. Il y a Moustapha Gay qui, qui, est Moustapha, si tu peux moment. il va vous entraîner de cela. Ça aussi, c'est important parce que ça nous permet d'organiser la présence de la presse. Hmm. L'année dernière, on en avait reçu un millier et cette également, ça sera qu'il va donner donc les, les numéros des emails. Il y a déjà même des groupes de presse qui ont, qui ont commencé à envoyer des leurs demandes qui sont qu'on donc de, de, traiter. Et également, je voudrais quand même saluer la présence des, des femmes à nos côtés euh, qui sont quand même en tout cas un maillon extrêmement important de l'organisation aujourd'hui donc à, à Massali. L'année dernière, vous savez, on avait organisé donc une journée des femmes qui avait été une réussite totale éclatante avec son ancienne qui est là et toutes celles qui qui sont derrière, son et les autres. Et cette année encore, euh, elles vont occuper une place donc, de, choix dans l'organisation donc, euh, que nous allons mener. C'est une Euh, yéene rek leeral leen un peu ci accréditation yi comme ni ngeen ko defee woon daan daaw dafa am benn plateforme en ligne boo xam ni ci lañ def ay formulaire plateforme yi nag pour accéder ci da ngay def www point touba exposition point com su duggee ci plateforme bi y a ensemble euh, d'éléments euh, allant à la nature de l'organe de presse si c'est une télévision radio magazine ou presse écrite euh, dem ci information rédacteur en chef bi surtout aussi euh, benn document boo xam ni dafay euh, am l'ensemble des journalistes yi nga xam ne organe de presse bi loolu la bëgg a accrédité loolu li ko waral nag mooy ñi ñëw ñi ñëw Touba dañu war a xam am seen identité kon document boobu nga xam ne dañ koy joindre ci biir plateforme bi c'est important pour ñu mën ko remplir donc day am le nom du journaliste <laughs> euh, prénom euh, de presse et le, numéro d'identification nationale pour que ñu am les informations sur le journaliste bu ko defee euh, yaa a 29 organes de presse yoo xam ni ñoom euh, dugal nañ seen euh, formulaire dañ koy jot automatiquement am na tamit benn réponse automatique boo leen boo leen war a jot normalement donc ñu ngi leen di ñaan ngeen def seen Euh, remplir seen formulaire avant le 31 octobre parce que badge yi dañ koy commandé depuis Touba c'est pas fait à Dakar c'est fait à Touba donc luñ ci gën a mën a teel a jot rek ngeen day day day gën a baax si yéen gën a baax si ñun kon li leen di ñaan euh, mooy ngeen ku nekk sa organ de presse boo demee euh, ngeen fexe ñu teel si jot beneen bi tamit mooy ren deux jours avant màggal incha allah ci wàllu hébergement yi ci la ñuy dalal journalistes yi ak le jour du màggal et le lendemain du Magal donc ça fait quatre jours kon loolu tamit information bu ñu bëgg a la pour ñëpp mën koo mën ko xam euh, leneen li ñu ñaan tamit mooy euh, comme ni ko Serigne bi waxee déontologie bi vraiment yéen a ngi koy sàmm bu baax loolu tamit on invite à tout un chacun de pouvoir redoubler d'efforts ngir que ñu génnee des informations pertinentes comme ni ñu koy defee chaque année pour ça information bépp boo soxla ci comité bi euh, y a sëñ Khadim Diom dinaa euh, leen jox numéro pour ku soxla benn information ci comité bi moom ñu mën la ko jox su ngeen gisee tamit benn SMS boo xam ne dafa bind màggal Touba xam leen ni ci plateforme bi lañ ko lañ ko jëlee c'est-à-dire c'est c'est euh, une façon automatique d'envoyer à tous tous les journalistes le même message et kon yaakaar na loolu moo taxoon jug accréditation yi su fekkee amul ay questions euh, su fekkee leer na alhamdulilah أسير مع الأبرار هنا أسير وزن لداني هناك أسير